liñ nekk nii am ñeen ñu fi nekkoon avant ñun day jeex rek nga koy romb après kenn ñëw kon nag nan rafet rek moom grand bu baax la grand bu euh, xam démb la vraiment mm-hmm. kon nag aussi ko ñaan si carrière am suñu borom dafa bu baax a baax amiin amiin parce que yàlla mën na loo euh, gisee allah mais loolu du Pape sama xarit la dëgg la Bamba partenaire Bamba partenaire nuyu nañ la. Euh, maa lay fay Mbaye. mais Mbaye ñi may woote wuyu de. <laughs> non waaw waaw wuyu wuyu. <laughs> wuyu de Mbaye man moom euh, mooy loolu. Anita c'est bon ah. ok Malick dama jàppale ko ci ma waaw mbay tey ma ñëw fekk. Euh, hmm. place bi. place bu bees la wala lu lu yàgg la wala ñaata place la. waaw mais Mbaye liggéey boo xoolee xam ni moom lu bees sax la. xam yow yow yaa ngi yaa dëkk bi. Eh, yàgg nga ñëw yaakaar naa ne li nga fekk fii ak li nga koo yaatal quoi. non laa def rek. waaw yokk lépp. Mhm, waaw showroom lañ def xam nga. yokk euh, performance bi. Mhm. yokk liggéey bi. Mhm. yokk place bi gën a mag. xam nga aussi euh, partenaires aussi ñoo tax ñu def lool ndax bu nekk ci mbir ñu liggéey ba si yàgg day laaj nga innové man bu man dong dong mën naa taxaw fi ma taxaw mais ñi may ñi may liggéeyal ñoo soxla ñoo euh, ba léegi partenaire couture boo xoolee sa ginnaaw na lee am na benn bureau bu nekk foofu bu def partenaire oto mhm. def location vente de voiture waaw loolu aussi ah, daf suñu yoon bon je indi partenaire couture ba créer bien sûr ñu suis ko partenaire vraiment ah, man conseil ndaw yi mooy mais parfois ah, il faut il faut reculer ah, pour mieux parfois Aruna. bu cooli bëree uh-huh. léegi da ngay andi tuuti uh-huh. bàyyi ba pënd uh-huh. nga doog nga doog a feñaas ku si dem ba xaw a tuuti tànkaay sax ah. kontaan naa waaw yaa ngi cool ah maa ngi cool yaa kontaan naa ku si xaw dem ba kii rek nga ni ah, ah, mayor xaw ma pour de sauté genre wax jooju ñee la la mooy ba kii mais quoi surtout la mooy ba kii. surtout dañu gis Wally di ko wax. mais xam nga xam nga xam nga parfois. boo gisee ah, Wally di wax Pape Diouf di que temps yooyu. Ah, dañu nekkoon ci ah, début début promotion. Uh-huh. doon génn chaque guddi. Uh-huh. mais xam nga boo génnee ba gars yi xam la ba tur bi siw uh-huh. ba nit ñi daw aussi la sa liggéey day tënk ba dootoo mën a génn guddi yi di baal yi ci boîte xam nga mais ba léegi fi ñu ya yàlla dogal na suñu suñu suñu avancé wul delluñu ginnaaw da boo xoolee la woon daaw daawati géej ñoo nga fi daawati géej ak ak li nga fekk ren loolu yaakaar naa carrément kuy dellu ginnaaw du ko mën a na parfois nag yi laaj ne ñu xaw a dugg ci ruq bi liggéeyat affaire yi changé mbir yi tuuti tuuti xam nga mu gën baax ñu ñëwaat ni ko sénégalais loolu laa def ni lan sa problème ak non daan def gàng mais mujj gi defatu booy am du question de du question de gang de je parfois man bokkoon en association des médecins du Sénégal ma nekkoon ma nekkoon président bi quoi bon à un moment donné dama jëm ci biir euh, sama temps ak voyage moo mooy tout le temps te bu nekkee président bu ñu wootee yaa woo jiite bu ñu causé yaa a joxe.

Ah, ah dégg naa dégg naa ah, dégg naa dóorante waaye. non dóorante mooy ah, lan man information mooy am information carrément lan nga jotee. non non ñun ñun ay kilifa ay ay kilifa yéen nag dañoo xuloo ñuy xeex. xam nga te ay talibé sëñ Tuubaa lan. dégg naa kii dafay ëpp kii kii ëpp kii dafa voyage yi ah affaire de euh, kii da affaire de fiiran fiiraange moo leen moo moo leen jàpp. non non non daf daf passage sax ma koy nuyu ndax ñun euh, li ma gëm mooy mm-hmm. euh, ku nekk. yaa ngi sa yoon. Mm-hmm. te mbay ñun ay xale yu ndaw lañ. Mm-hmm. daw ñu bay daaw lekk suñu kanam moo ëpp lu ñu weesu kon nag da def nànk nànk euh, boo defee nànk rek suñu borom suñu borom wala yoon euh, xuloowuñu xeexuñu mais problème de temps la am temps. ah, ah, ah a daan ànd waykat yi da leen way waaye su tuddee kii rus naa tudd kee kii tuddee mu mu dem ba ay xaajale ko am si si seen diggante. non nday mbay xaajale ko mosul am. Ah. li ma la mooy. temps moo amatul. non non temps temps xanaa temps. waaw mais bi ñuy ànd c'est normal temps ñu nekk a xale xam Euh, soxla yu bëriwul entreprise yi bëriwul da ngay am temps da ngay am jot boo neexee nga bàyyi nelaw ba midi uh-huh. boo nelaw ba midi uh-huh. euh, ga génn nga ñëw doo liggéey si boobu engagement yi bëriwul uh-huh. mais léegi amatuma amatuma euh, droit nelaw ba huit sept heures pile dama yeewu parce que damay am ñu may xaar sama place samay employé di ma xaar sama place kon moo tax ma gën di baali tu comprends moom dañ moom aussi mooy amul temps ba ah, ma Bamba ay ku leen doon wax benn tur bi rek lañ daan lañ daan lañ daan ànd quoi léegi mu dem ba waxatu daa duñu leen gisati ngeen voyage yi leen gisati maanaam yow sax sa voyage xam nga da nga kalu quoi am na euh, euh, am na sax ñu naan Bamba dafa ne danga ne gars ñu koy wax quoi <laughs> lan moo tax baat moo dafa nay Bamba du génnee Bamba publicité yëpp xam nga gars yi ku ko ne Bamba Bamba Bamba partenaire mu ne ah kooku waa jooju moom mu yor ko lan moo ñu loolu. non mais ay ay quoi billaay. lan moo tax ñu koy wax. bon leen de xamal naa leen ah. gis nga dëkk bi nii. Mhm. ah lekk kese naxuti bay. Mhm. boo fi nekkee. Mhm. un an deux ans nangoo def euh, publicité. nangoo def communication. je crois doo fi def doo fi yàgg de. ah mais yaa ngi doon def bubsu bubsu daan na kii jékki-jékki ko. waaw waaw mais naa carrément affaire boo ko boo ko laalee. ba coolu jóg. Uh-huh. Euh, trop de en communication. Uh-huh. tu la communication. Uh-huh. boo communiqué ba coolu bëri da ngay def en temps d'arrêt. arrêté nga dem liggéeyi nag ma góoma woote woote woote woote non non non parfois da ngay def tekk nga dem nga liggéey liggéey parce que boo xoolee gars yi parfois dañuy ci. feeñ télé rawante ci wax radio rawante ci feeñ ay snap man gëma loolu xam lu ma gëm toog sama ruq di liggéey qualité la gëm so paré ci qualité dim ci quantité ndax bo xolé ah, yaakaar naa carrément ku fay wala ku nay du réaliser lima lima réaliser ni lima def nak du suma ngóora genre yalla ma joxee rek ndax ma fi ñew kenn gën ma fi siiw kenn ëpp ma fi kenn crédibilité suñu borom moo ma jàppale et puis ma gëm sama bopp nak kenn jappalé wu ma gëm sama liggéey Ah, ci suuf laa jógee dem ci kaw ba tey ba taxaw mën a taxaw tey showroom def ci ay millions yu bëree bëree bëri bëri ay millions yu bëri wax ma la un deux millions yu bëri laaj def loolu fit moo koy def ak courage ak ngëm-ngëm moo koy def ku nawet def loolu dégg nga ma uh-huh. lan moo waral takk takk takk takk bi quoi takk ku daan dégg Bamba partenaire fu ne mais Mbaye wax naa wax naa ko trois fois Mbaye nee naa la uh-huh. carrément loolu sama stratégie la man uh-huh. suñu dégg Bamba partenaire fu ne parfois da ngay dem nga arrêté nga dem nga liggéey gis nga boo toppee effort bi top pënd bi da ngay réer si sa yoon mhm. parfois bu coow bari bari bari trop da ngay arrière dem nga toog nga liggéey parce que ñi ñi aussi kenn leen nax de coow kese kese kese bu gars yi ñëw wussi la fekk ñu fa euh, lu consistant lu dëgër dañ lay bàyyi man nag loolu laay liggéey man sama comme man la def coow lu bëri ba caa mu def arrêt dem liggéey ku ñëw fekk si ma xam ne carrément Bamba Gueye toog na mi ngi liggéey man loolu laa gëm mhm. téere yi dañuy nekk dañuy di am ba ñetti place ñi ñeenti place ñi juróom place ñi dem ba États-Unis mhm. kii yow

jël samay machine def ko sama sous toog di liggéey su ma xëyee tim samay tailleur den xool tim li may liggéey lan la moo loolu la préféré moo gën ay benn place ñaar coow li bëri te liggéeyoo liggéey bi war man gëma loolu ah, kon ñu koy def kon ah, da nga leen di donc nga ñu mu mais su ma doon conseil daal su ma soñoon. Modou Gueye RTS loolu la ko yëgu ma loolu vraiment. non du question de sama xarit la sama xarit maa ngi Modou Gueye. boole. dulu ndaw. maam Serigne Touba bu ñu boole. ah mais lan moo tax mu man yaa ko wax man benn place benn place Modou xam. non bay arrêté loolu amul problème pas de problème non non waaw tey dama gis carrément mais tey bay na waaw am na yeneen tour nga jàpp benn nit léegi di ko ciblé ndax loolu ah mais mais dama leen yéen ñaar rek gis quoi non non non bàyyi gën a ci yooyu mbay waaw waaw acca yëgoo non yëgoo looy pare ak corté bi mode corté non li may pare mooy déjà ñu ngi ci benn liggéey mooy showroom ba mu partenaire moom la ñuy pare jëm ko teg Euh, wan ko Sénégalais yi ñu xool li Bamba liggéey euh, ci foofu noonu aussi am na modèle yu bees am na création yu bees am na yëre góor yëre jigéen loolu rek doy na mode korité suñu paree nag après ñu doon xool beneen étape la bi ma nag damay de bu show bi paree ba bañ toog ba dal étape suivante mi ngi ñëw leneen mi ngi ñëw incha allah rabbi ci côté non yu bari du jeex ci côté liggéey nag mm-hmm. liggéey rek mm-hmm. lépp luy fo ak caaxaan doxuñu ci mm-hmm. lépp laa ci liggéey ñu fu gisee ñu toog aussi xam nga liggéey moo ñu tax ci kattanu yàlla. Mm-hmm. jaajëf <laughs> <laughs> waaw a sa waay la loolu dëgg la. waaw jeune frère. waaw waaw jeune frère Bambal. vraiment vraiment bu yàgg dëgg yàlla def xéwal. yàlla barkeel liggéey bi. yeneen yeneen yeneen Bamba partenaire na topp ci. waaw fu nekk affaire yi saawan baawal. ci le mérite. am na jom am nga fulla am nga yar te nangoo nga liggéey fonk nga say waajur te loolu rek moo am moo moo moo am solo si àdduna affaire yi nag moom dara jarul yàkkam tant que yaa ngi am wér gi yaram daal lu jor rek yomb quoi waaw félicitations et bonne chance. merci nice quoi vraiment nice nice. Euh, waaw Bamba day moom vraiment sama relation ak moom je pense que. ay nit bu ngeen dundee 15 ans war nga mën a wax si moom tuuti li ma gën a neex si moom mooy humidité eh, bi nekk si moom Bamba bariwul wax te nangu na liggéey te loolu rek moo am solo si àdduna muy nit ku am yar mais nag fonk ay parents fonk njabootam fonk ay xaritam xam nga ñu mu doon àndal démb ak bërki démb ba tey ñoom la nekkal donc vraiment maa ngi koy jàmbaari Serigne Saliou murit sutura defal ko wér vraiment ndax li mu def nii dafa bokk si développement wu réew moom liggéey rek moo ko mën a avancer la te li mu def nii investissement la boo xam ne vraiment rien à dire vraiment macha allah. merci merci allah. waaw mais man moom vraiment amatuma ay mots quoi. ndax vraiment li Pape wax rek. ko àndal boo sax j'étais encore plus jeune. xam nga ma te teewul euh, ci ma gën a jàpp. Mm-hmm. ba tey nii ànd ànd bi dara mosul ñaaw. ñuy seq euh, teraanga di demalante boo xoolee sama taaw sax bi may ngéntee